auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim comme ni nga koy defee saasu ne rek euh, ñoo ngi fii ci imam Malick kenn dootu ko présenté fii ci site bi Allô Sénégal ñoo ngi koy jëfal bu baax a baax a baax car il fait partie des imams les plus ressourcés au Sénégal macha allah lu ko ko may mooy euh, connaissance ak euh, li nga xam ne tey sénégalais yi ñoo ko jox moom mu mën koo gëm mu nekk ci biir xolam di ko jox li nga xam ne ñoom ñooy suñu internet yi ñu bàyyi ko mu présenté wu imam waaw kay waaleykum salaam wa rahmatullah waa internautes yu Allô Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ndokkeel ñëpp di bégaat bu baax ci Allô Sénégal ci teew bi ñu teewaat ci daara ji ñu war a waxtaanewaat incha allahu rabbuna lépp jëm ci réew mi ak diine ji bismillah imam euh, comme ni nga ko defee saa su ne rek euh, ñun moom ci dina la ñuy dox te ci la ñuy woy incha allah avec yow tout est possible macha allah euh, tey nag li ñu fi indi bëri na bëriwut waaye concept bi dañuy dugg génn foofu ñëw ci li nga xam ne mooy koor gi parce que yaa ko diggoon seen internet yi dañuy gis suñuy commentaire sax gars dañuy wax ni ah imam dañoo ngi koy xaar ci koor gi te xam naa ne koor gi moom du yomb bu soobee suñu borom. incha allah waaw koor gi moom comme li may wax rek. Mhm. kooru Sénégal moom. Mhm. ku yóbbu profito ci gaaw le maximum li nga am nga jox ko li ëpp ci sénégalais yi. Mm-hmm. ndax daanaka bu koor jotee dañu dañu déglu yàlla déglu yont yàlla Muhammad loolu moom ñëpp a ciy bokk. Mm-hmm. mais bu koor gi di tàggoo dangay ngay yëg ni am na ñoo xam ni tàggu nañu waat diine ba déwén. Mm-hmm. ñoo moo tax nag comme période la traite la ci wàllu diine. rawatina téere yàlla bu mag bii ñu tuddee alquranul karim ci la wàcc. incha allahu rabbuna ñu fas ko yéene àndandoo ak mbooleem euh, internet yu Allô Sénégal. di waxtaane téere yàlla bi ak actualité yi mhm. waaye di waxtaane waale tamit société bi li diini l'islam santaane lan mooy njàngale yi la modèle suprême et universel muy sayyiduna muhammad loolu ñu profité ci biir weeru koor wi mhm. fexe ba mën ko def ndax ñu jëriñ nag nit ñi ndax nag mbir mi du toog rek mhm. di waxtaan pour waxtaan boo xam ni pour sa bopp la wala pour kenn la wala fay bor wala leble dañu fi toog li wajhillaahi taala ngir waxtaaneel nit ñi ndax ñun li may wax toujours rek ni réseaux sociaux daf ñu dab ñun dabi wuñu réseaux sociaux waa rab réseaux sociaux moo ñu dab daf ñu fekk ci yoon wi mhm. mu xew ñu ànd ak moom mhm. loolu moo waral sunu njàngale ca daara ja sop soppeekuwul changé wul mhm. sunu njàngale ca jàkka ja soppeekuwul changé wul lan moo soppeeku mooy formule bi mais texte yi ak nañ daan waxtaane dara changé wu ci ñuy ñaan nag mboolem internet yi di leen wax ni euh, lii mooy sababu suñu toog di ñaan tamit li ñu bëgg yépp nag mooy réew mi ñun ñiy wax imaam Maodo Sylla bi nekkoon imaamu grande mosquée bu Dakar da daan wax ni suñu xutba tey mhm. mooy di fàttali suñu bopp di leen fàttali mooy nañu yëg ni ñoom kii wax mm-hmm. message bi ñun ak moom ñoo ko bokk mm-hmm. mais nag yàlla moo dogal mm-hmm. ñu am wiraasa ci daara am ndono ci daara alhamdulillahi rabbil alamin li doomu soxna di jàng te tolloog ñun yàlla may ñu jàng nañ ko dëkk ci jàngale jàngale kon bu ñu euh, média dabee ñu àndandoo ci ak moom loolu defe naa ni moom rek mooy suñu liggéey ci biir réew mi ak bitim réew mi Euh, moo ngi noonu chers internautes waaye imaam yaa ko wax ni euh, internet daf ñoo dab ba tax na tey gis nañ ay imaam yoo xam ni tey ñoo ngi génn te imaam yi gars yi dañ leen di bàyyi xel ñu am euh, solo ci réew mi te réew mi ba tax na gis nañ ñoo xam ni tey ñoo ngi bëgg a weddi imaam yi loolu ñu ciy mën a dégtal. waaw xam nga sëñ bi damay wax toujours nii nit bu xasee ba génn bay wax mhm. dafa am ñaar yoo war a préparer sa bopp sëñ bi. xam nga ki toog ci gàmm gi di wax te jamonoy internet xewul. bul yaakaar déggul dara de. ki daan jiite jumaa ji te internet xewul. dégg na dara. ki nekkoon ci daayira yi te internet xewul dégg na dara. donc yooyu da ngay préparer sa bopp ni. li may wax ñaar laa ciy viser. mooy est may wax. yàlla rek a ko lal. beneen bi ci des est-ce may wax dëgg la. ñaar yooyu bu xasee leneen lu yegg dëgg-dëgg dangay ngay yëg ni nag ñaar rek mooy kooku dafa nangoogul wala dafa xamul ki xam ta nangoogul ñaanal ko la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne képp koo xam ni xam na ma ta nangoogul maa ngi ñaan yal na yàlla euh, indi la ñi ma xamul nag nga ñaan yal na yàlla xamal ma leen kon nag ihdi qawmi fa innahum laa yaalamuun loolu la yonent bi waxoon kon koo dégg muy contesté imam mbaa muy contesté religieux bi te religieux bi nekk koo xam ni lañ ko waroon a doyee ci wàllu diine mate na ko leen rek a fi ne mooy ki ñuy contesté ne nangu nag xam ni ki ko jiitu woon muy Sayyiduna Muhammad nangu woon na ay nit di ko wax ni majnuun nga dof nga ñii ne ko shaair nga ñii ne ko kaahin nga yow gisaa nekkat nga yonent bi dégg na lii boo demee yàlla nga ko synthèse ci benn surat bu ñu tuddee suratu yaasin lii may wax yépp ay baat yu péjoratif la woon te yonent bi dégg na ko kon nag dëgg-dëgg bu ñu yàlla indee ñun ñu nekk ndonoom te al ulamaa warasatul anbiyaa'i ñiy waxal yonent bi message am ñoo ñoo ko wuutu kon nag bu la yàlla dogalee nga tooge ci place boobu da ngay accepter nag ku amul capacité d'accepter li nit ñi di wax c'est inutile ngay génn di toog di wax ak nit ñi nit ñi dañoo am sañ-sañ dañoo am wareef dañoo am droit ci li nga wax buñ ci gisul seen bopp ñu contester ko xam nga mënoon nañ di def ba pare naan ignorer leen commentaire mhm. mais man préféré ma loolu dama préféré ñu bàyyi commentaire yi libre ki bëgg wax lu baax wax ko ki bëgg a wax safaan wax ko ndax lan ñii xool commentaire mën ci jëriñu ku mel ne xajmal nag bu xasee ba pare mhm. départ naa maa nga ca yeneen aw ma sax jotu xool commentaire mais am na solo bu baax a baax a baax imaam nag parfois ngay laal ci commentaire yi day am solo <laughs> ba tax na <laughs> dëgg du neex xam nga temps yi nag gis nañ fi benn polémique boo xam ni euh, ci imaam yi ba léegi rek ñu duggaat ci imaam yi euh, Chérif Ibrahima euh, Aïdara mu wax loo xam ni population bi rafetlu ko nan nga ko gisee en tant que imaam. waaw ki nga ma laaj ci moom de sax damay wax ni wax ci moom war na ma mën a jafe man mhm. ndax situation yi mu nekk. ñemewuma nekk avocat du diable duma ma loo xam ni askanu senegaal yépp mettitlu nañ ko naqarlu ko ma ñëw toog di défendre loolu waaye nag bi ma ko naqarloo ànd ak senegaal ba pare ndax xam naa ki doon wax kan la li des nag mooy man personnellement maa ngi feddaliwaat sama xame ak moom feddaliwaat sama kóllëre moom feddaliwaat sama xaritoo ak moom te di wax ni wax jii jiidey li ma wértewoor mooy bu fekkoon am na benn récompense buy tax moom mu yëg ni Sénégal loolooy tax ñu kontaan même bu dee jëmmam pour ñu dem gas ko suul jaral na ko man xam naa ki may waxal gis nga shérif mi wax. imaam yow kon yow da ko xam. waaye yow danga ngaa xam shérif nga may wax. xamul tax ma la koy laaj certains internautes yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel euh, dafa nekk euh, question boo xam ne ñun préparé wuñ ko woon. donc dañoo jekk ba càgg euh, dégg population bi di ci kaas. naan imaam yi kat li ñuy wax na dugg na fii génn na fii te ñun yow lañ am. ñun yow lañu tiitaroo. donc loolu moo tax ñu dugg ci concept bi ndax bëgguma nit ñi yaakaar ne question boo xam ne dañ ko préparé. waaw mais Pa Omar. loolu dama ci war a wax loolu actualité la sax. Mhm. beneen bi ci des tamit comme ni ma la ko waxee rek. Mhm. Chérif Ibrahima dara at Tijani sama xame la hmm. bu baax a baax a baax a baax ñu séq lu sori lool bari na nag ñu ma séen ci mbir mii bi mu xewee ñu ngi koy tontu li ma ci gën a neex nag ci tontu bi hmm. mooy dañ naan man de xaw ma ko waaye mais imaam imaam nañ ñëw ci xameel bi hmm. parce que loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu lu lu ñu war a bàyyi xel la yow fan nga xamee Chérif Aïdara Ibrahima Aïdara xam nga Sénégal daara ji ñëpp xamante Mm-hmm. Sénégal mm-hmm. daara ji ñun ñëpp xamante lenn rek a fi ne mm-hmm. mooy koo amal relation ak koo amal relation mais ñun ñun ne ci daara ji Sénégal ñëpp a xamante imaam yi Sénégal oustaz yi ñëpp a xamante lenn rek a fi ne mooy koo toogal ak koo toogalagul yàlla dafa dogal nag Chérif moom li ñu liyee li ñu li ñu boole dafa dafa sori. moom moom waaw moom li ñu boole dafa sori parce que nit koo xam ni da ngeen bokk lépp séq lépp kooku mënoo wax ni lii moo ñu boole. comme lan exactement pour xam nga internet yi ñuy seetaan samay soxla nañ loolu imam comme lan lan ngeen sëkk ak fan ngeen lan ngeen jot a dund yéen ñaar. maanaam je pense que ñu ñëw ci actualité bi dafa may gën a amal solo ci ñu waxtaanee euh, parce que Chérif euh, ñëpp xam nañ ma ak moom ñu koy xool internet bi sax. yàgg nga ma gis maak Chérif Ibrahima Aïdara Tijani xam nga nit boo demee ba ngeen séq euh, sëy sori ngeen. yàlla dogal na amoon naa jabar France boo xam ni tey jii gannaaw yàlla moom moo taxoon ma xam ko. kon Chérif Ibrahima Aïdara du soxnaam bii mu nekkal France. moom ma présenté sama soxna bi ma amoon France. kon sama diggante ak moom dafa sori au delà de lool daf ñu dab. avant loolu fekk na ñu nekk ay wóolëree. mais ma seedeel la di wax Sénégal yépp nag moom mii ndeyi mbilli ji. su génnul woon sax baalu àq. man li ma wérte woon mooy xam naa ni Sénégal daañu ko baal xam nga lu tax. mooy Sénégal du dëkku fitna. dëkku jàmm la dëkku jàmm la. beneen bi ci des képp ko xam Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane personnellement. da nga yëg ni njuumte moo am. waaye da nga yëg ni du nit ku intentionné wu pour wax lu bon ci réew mi. je parle nag en connaissance de cause ku ma xam laay wax te képp ko xam Chérif lii may waxit war nga xam nga nag euh, Pawmar. Mhm. mbir mi du yegg si rek ne tell ci kaw Cherif ma daw dellu ginnaaw te ñépp di ma séen lu xew ma wax ci dama ne maa ngi ñaawlu kàddu yi comme ni ko senegal yépp ñaawloo foofu nga war na njëkke nag imaam daa mel ne mais foofu laa njëkkee njëkkee naa foofu cest à mooy nee naa maa ngi naqarlu kàddu yi xam nga xam nga tey boo boo waxee ne par exemple imaam euh, Cherif xam naa ko bu baax a baax a baax yàgg nañu mm-hmm. tey nga ñëw euh, d'accord nañu rafetlu woo kàddu yi nga xam ne moom la teg ci li nga xam ne ci ci ci société bi. la plupart de de la société. sénégalaise ñi nga xam ne ñooy olof yi gis seen bopp. donc tey boo ñëwee nga xam ko. ak connaissance bi nga xam ne dund ngeen ko. tey nga xam ne am na xol bu rafet yaa ko seede. du dëgg mais tey am na foo xam boo ko waxee internet yi li ñu bëgg a xam amaana mën nañu sax ni imam bi li mu wax nanga ànduñu ci. non xam nga li internet yi wax. Mm-hmm. vraiment ñoom la concerné. parce que ñoom it seen gis-gis la ñu am. seen droit la ñu am ci komante man li ma xam li may wax nii. du waxi ma sàmb du waxi ma Demba du waxi kenn waxi imam Hadj Malick Diop mii wax te xam bu baax ki wax dama dégg ñu bëri nag. maanaam xam nga réew mi mënoo fee wax lu mel nii ñëpp naqarlu ko. Hadj Malick Diop toog naan man naqarlu ma ko loolu boo ko waxee sax euh, vraiment sérieux woo te man xam naa bu baax shérif ci patriotisme am léegi noo ko naqarloo noo ko naqarloo. non naqarlu mooy comme ni ko sénégalais yi naqarloo parce que xamul tax mooy kàddu yi dafa bokk ci kàddu yi sénégalais yi rafetluwul mais bokkul ci liy taal réew mi loolu it naa ko wax koo dégg mu naan la lii day taal réew mi xamul réalité Sénégal gis nga ki wax su fekkoon ni dañ ko ne boo deewee senegal jag man maa xam sérif billaahi bu ko ko kilifa gu mu gëm waxoon mu rey boppam ngir Sénégal am ndam. su doon dañ ko ne boo demee prison Sénégal léegi mu naat du def dara dana ne yóbbu leen ma prison gis nga dundam gi daf ko daf ko def ci liggéeyal Sénégal daf ko def ci liggéeyal askan wi mu bokk te li may wax ñi xam Chérif Ibrahima ay Aïdara Tidiane yépp mën nañ ko seede lii nag kuy wax ku ne mën na la gaar mooy Chérif njuumtee ko dab malgré moom contexte ba mu waxee sénégalais yi mënatuñ ko nangu moo tax moom il a vite compris daw gaaw jéggulu sénégalais yi parce que dama doon kafak ña nekk ca zaawiya ba ni ma leen yebe di leen tooñ bu ko fi waxoon it ñu ne ko loolu ñun gëmuñu ko tooñ nga daal tooñ nga mais nag lii du kaddu yoo xam ni man ñi ma dégg ñu naan taal Sénégal taal réew mi kaddu euh, Haslamine euh, nu mu tuddati Pa Oumar danaa la wax benn mbir lii sama jàngatu bopp la gannaaw bi ma ñaawloo kàddu shérif yi comme ni ko Sénégal yëpp ñaawloo maa ngi lay wax ne la ñett yi du taal Sénégal. mu yéen ak man yàlla dogal na ci nguuru Abdou juuf laa njëkk a def tour du Sénégal. ànd ak projet wër Sénégal. benn xam naa bu baax réew mi département yu bari dem naa fa waxuma dem rek toog fanaan naa fa ay fan xam naa localité yi gën a ruqi ci Sénégal. def naa ko ci nguuru Abdou juuf def naa ko ci nguuru Macky dama lay wax benn mbir kàddu gii mu sëri wax ci wàllu waaso du taal senegaal benn ñaareel bi ci des kàddu diine déranger diine du taal Sénégal dañ ko dañ ko régler ba pare ñetteel bi ci des mooy kàddu politik du taal Sénégal lii ma wax nag historien yi ma dégg ci télé rek ñuy wax naan lii day taal Sénégal dama jàpp ni ñoom jàng nañ dakaaru génn dem France ñibbi si waat mais xamuñu réalité réew mi gis nga réew mi bi ñuy tabax tariqa dañ ko tabax tabaxuñ ko ci wàllu waaso Serigne Touba bi muy tabax mouridisme ci wàllu nation la ko tabax looloo tax nga séen mboolem xeetu askan wi am ci Sénégal am ay taalibe murid tijanisme ci Sénégal xeet yépp a ci am xaadir ya xeet yépp ci am laayeen xeet yépp a ci am loolu ça montre que ni kon foofu c'est bien codifié ña fa war a ne nenañ fa garanti na kon wàllu tariqa du laal mukk Sénégal ak wàllu diine la preuve mooy quatre-vingt-quinze pour cent musulmans ñoo njëkk a fal premier président de la république mu nekk katolik tey boo xoolee Sénégal capitale bi gën a rëy ki gañe maire bi catholique la ci ndey catholique la ci baay te doon maireu dakaar presque mooy daanika da ngay nekk sax daani koo xam da ngay associé ak état du Sénégal ndax pouvoir bi nga yor loolu kon affaire diine ñi xamul ñooy wax dina déranger nag par léeg parce que fan yu néew gisoon nga benn imam bu ñuy wax imaam Lamine Sall def sorti bëggoon nañ ci dugg mu déranger rek terewul dañu def euh, euh, wax nii parce que loolu la ñu tabaxee Sénégal parce que boo songoon Lamine Sall li nga fet ci askanam koo xam catholique la wala am mbokki catholique soo songee catholique da fay gis sa mbokk. kon wàllu waaso wàllu diine wàllu politique du tas Sénégal nee taal Sénégal. lan mooy taal man li ma gëm ni mën na taal Sénégal mooy wàllu suuf. suuf la billaahi Sénégal du tàkk ci politique. du tàkk ci mbiru waaso. du tàkk ci mbiru tariqa du tàkk ci mbiru diine loolu c'est bien maanaam defar nañ ko ba mu dëgër. lii taal Sénégal bu ñu sàgganul. mooy suuf xam nga lu tax. foo ko teg très bien. gis nga Sénégal bi ñu amee indépendance ba léegi. Pa Omar superficie bi réew mi am moom rek la am. boobu frontière yaa ngi ñu wër. ñu ne Sénégal fii la yem. yokkagul un mètre carré. ba léegi nii yokkagul. te bi ñuy am indépendance matuñu woon 4 millions 3 millions et quelque lañu. léegi ñoo ngi ci presque 17. léegi ñu ne ci 17 millions. te réew pour nga bokk fa exister yëg sa bopp ci réew mi suuf rek la ci mën a boole xamoo nga lu tax voilà dama ci prêter loo attention état yi ak suñu localité yi ak ñi yor suuf ci wàllu Sénégal loolu moo mën a taal Sénégal parce que bu ñu demee ba étranger yi di ñëw di ñu buux ci suñu yenn dëkk yi di ko nangu. comme comme comme comme. bëri na bëgguma laal ay dëkk mais tey bëri na dëkk yoo xam boo fa demee. seeni boroom ñu ngi jooy te suuf kenn du ci doon taalibe gis nga loo doon doon taalibe nit bu ñu jëlee suuf jox ko sëriñ rek nga mer ñaata yoon nga fi dégg ay nit yuy attaqué guerre ne duñ nangu sëñ bi jël suuf si parce que suuf moo la boole ci dëkk bi foo ne boo fa amul foo toog rek espace boo toog da ngay xat te réew yi ñu wër yëpp man dem naa Mauritanie dem naa fa depuis avant Abdoulaye Wade di falu ci nguuram mais dëkk yooyu boo waxtaanee ñi ko xam dañu la naan fii pour nga am fi benn waxuma usine boo defar de comme nii ñu def jam ñaajo jox ko yenn société ak yenn dëkk yu mel ni Salé ak yenn dëkk yi ñeme woo ko Mauritanie mënoo fa am loolu soo demee ci sous région bi li ñu tiim yépp pour nga am fa suuf existe taxaw ba mën fa xeex ay nit yu fa dëkk lu jafe lay doon donc kon dama jàpp ni. ba tey ñu ngi ci suuf si. moytandiku ci wàllu suuf. moo gën a garaaw moytandiku ci wàllu waaso moo gën a garaaw moytandiku ci wàllu tariqa moo gën a garaaw moytandiku ci wàllu politique ndax situation bu ne jaar nañ ci ci ñett yi ma wax terewul apaisement am mais seetal mbiru suuf heure bu amee nga seen ay jaas yi génn te buñ sàgganee rek jëye xew bëri na nag li ma wax bëri na ci nguuru Abdou juuf am na ci ci nguuru Abdoulaye Wade déggoon ngeen ko li ngeen doon xale nguuru makki Sall loolu am na ci suuf la ñu war a moytu def ci ndànk ndax askan wi mi ngi yokk te li ñu amoon ci superficie ñun ñëpp ñoo ko bokk kon jaadu nañu organiser suuf si ba kenn ku ne gis ci boppam xam nga lu tax Sayyiduna Muhammad lii may wax pour firndeel ko bi mu génnee xam nga Màkka la juddoo fala yaroo fala màggee mu xëy xam nga lu ko génne mm-hmm. du coobareem de yàlla sax dafa xam ne dañ ko xatal amatu fi suuf mu sant ko mu exilé mu gàddaay mais bi mu génnee màkk bay bëgg a dem dafa joxar bi dëkk bi ne yàlla yow génne nga ma dëkk bi ma gën a bëgg ndax fi laa am suuf yaa may yóbbu nag yow dëkk ba nga gën a bëgg yàlla nag ma fa may suuf moo tax bi mu nee saraax madina li mu njëkk a lijjanti mooy fan laay am fu ma moom su mastara mirbadal mawsuuli maadulatan min maali siddiqihi almaaruf bilkarami boo demee sa maam Cheikh Al Hadj Malick way na ko nee na bi mu duggee lundi bi mu duggee foofu ba wàcce ay bagaasam dal ci biir semaine bi la ne balaa ma fee mën a nekk citoyen normal ngeen accueillir ma yëg sama bopp boole leen ma ci dëkk bi ñu ne ko lu ñu lay boolee ci dëkk bi mu ne mooy il faut ngeen jox ma suuf. ma am ma dëkk. xam nga suuf bi mu jël foofu ñaata kan moo ko jox. kan moo ko ay njirim dañ ko ja jënd ci ay njirim. ñaari njirim ñoo ko moom. Mhm. est xam nga bi mu koy jënd parce que yorul dërëm mais dafa dem ci Aboubacar comme moom la àndal Aboubacar génneel ko xaalis mu jënd ko ne Aboubacar maa la yoreel bor mbokk yi Chérif Ibrahima ay Aïdara Tidiane li mu wax métti na Sénégal yépp mais maa ngi leen di seedeel nii bu ngeen demoon def reportage ca Amosis ga mu dëkk li mu maye ci ay sëy mat nañu ëpp nañu junni ajjuma bu jot mu toog ci xadaraam lu ëpp téeméeri nit wër ko ñuy zikkar du du du fawe julli du fawe jaamu yàlla ànd na maak moom tukki bitim réew France pour won la patriotisme dañuy ànd tukki maak moom nekk nañ ci hôtel France ñu yeewu bët set ay étudiants seet si ko mu génne alalam bi mu yor jox leen ko ba pare ne leen représentant peuple ba ngeen fii ngeen ne yéen ay ay ambassadeur ngeen gis ngeen shérif mi wax jéey wax na ko de mais li ma wérte wóor liggéeyal na Sénégal ñu koy xas ñoo xam ni liggéeyaluñ Sénégal lu mel noonu wax lu bon nag du tax ñu ne wax na lu bon mais dañ fiy jaare gasal ko bàmmeel suul ko su fekkee réew mi noonu lay doxee dañuy tàmbalee ca kaw tàmbalee suul ba yegg si ci moom suul ko suul ñu ci suuf parce que réew mi bari na fi ay kilifa yu ñuy wormaal tey waxoon nañ fi loo xam ni mënoon na yëngal réew mi mais dama wax ni bokkul ci yëngal réew mi Chérif jéggulu na na ko sénégalais yi baar ngir ba ngir ñaar mooy nañ ko baal ngir moom baalu na ak nañ ko baal ngir ñu xam ni ambassadeuru Sénégal moo wax lii billaahi ma France mais li ma wérte lu ma xam maa ngi jotanteek benn nit depuis Allemagne mu may wax ne ma su ma xamoon ni mi ngi France à l'heure actuelle du ma ñibbi Allemagne heure bii damay fexe gisanteek moom kon coow li juddu na njuumte am na moom nangu na ko fii kenn du fi nekk avocat di jaable di fi jéem a layal lu layuwul kenn d'accordul ci kàddoom yi mais ki ko wax du benn bandi bu génn di wax nit ku baax la koo xam ni li muy def fii ci biir réew mi su génnee réew mi moom lay def gis naa ci nag lu ma métti. muy lan imam. man daal man daal je pense que daal. li may wax ci mbiru shérif ci gàttal. pour bañ ci nekk vraiment di guddal. mooy njuumte am na. ki juum nag. dëgg-dëgg wuutu na senegal fu bari fuñ ko war a mën a jéggale lii mu def te man xam naa ci ay wolof yoo xam ni dëgg-dëgg Chérif séq na ñoom loo xam ni séqu ko sax askan wi mu bokkal amaa nag li ci des ay nit yoo xam ni boo tooñee yonent bi sallallahu alayhi alxuraan dafa jàngale ne nit bu tooñee na ngeen fayu lu toll ni li mu tooñ ci yéen tabaarakallaahu léeg leen na nga seen koo xam ni day dugg ci yoo xam ni vraiment may ñaan ñu jéggal ko ngir ñaar mooy weeru koor waa ngi ñëw te weeru yërmande la weeru njéggal la weeru goreel nit ñi ci safara la waaye ñu baal ko tamit ngir lan mooy Sénégal Chérif wuutu na ko ba tey bitim réew taxawu ko ci lu ma fekke ak lu ma fekkewul beneen bi ci des it il est tellement moo la gën a xam ni Sénégal seen constitution day tere lii Chérif Ibrahima moo la gën a xam ni Sénégal seen constitution day tere lii il est tellement cultivé nit ku cultivé la même moom bu doonoon cuune yàlla dafa def ñi ko wër ci jabar ñi ko wër ci doom ñi ko wër ci ay entourage am ñëpp yàlla daf leen def ñu nekk ay bopp kon lii njuumte moo dal ci kawam Sénégal war ko ko nangul nit ñi ko xam tamit war a bañ a ànd rek ci li mu def waaye ñu sóor li mu defal Sénégal li mu defal diine ji li mu defal tariqa bi yàlla na ko yàlla jàppale yàlla def Sénégal yëpp comprendre ko ñu jéggal ko ñaan sunu borom mission bi mu doon def mu gën ko continuer gën ko liggéeyal diine liggéeyal réew mi ba li mu bëggee yëpp ci lislaam yàlla defal ko ko ci barke yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam euh, wax ji wax dëgg yàlla euh, rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax parce que euh, Chérif Ibrahima Aïdara comme ni nga ko waxee rek dafa juum te ku juum nag ba jéggalu euh, jar nañu baal ko parce que la quasi totalité de la population sont des musulmans te ñun ay jullit lañ donc suñu imam la suñu shérif la euh, nañ ko wormaal aussi comme ni nga ko wax rek bu dee benn sax bu baax mës na ko defal Sénégal donc mu nekk lu am solo mu nekk aussi tam ay révélation yu am solo yoo xam yaa ko seedeel fii ci Allô Sénégal